salaamaaleykum yaa booy nuyu naa la. maa ngi lay fay. yaa ci jàmm. maa ngi ci jàmm. yaa ma nekkuma ci jàmm. ndax lu metti lii dal sama doom. metti nañu torop ba ci kanamu yàlla. waaw ñu xëy xëy rek ñëw ne rey nañ ko. loolu lu metti la. metti na ci suñu xol yi. waaw metti na ci suñu xol yi fa mu gëm nag yàlla na ko gënal fi mu jógee. ci barke Seydina Mohamed. metti nañu metti na waajuram yi metti papaam metti yaayam man maag yaayam ma bokk ndey ak baay waaw mënuma wax ci xale bi dara lu dul lislaame diine am na diineem am na lislaam waaw du tooñ waaw dañ koo tooñ nag tooñ nañ ko ndax di dawal sa oto mu ne la nii nga war a jaar nga ne ko nii ngay jaar lool rek nga dem ci sa oto génne paaka jam ko ko xam nga ne loolu lu metti la mais nag yal na yàlla saafara lépp rek mu leer naa ñu ci barke Seydina Mohamed wasalaam mënuma wax. ay atam si ñaata la toll. Baye Ngal war naa am ay vingt ans rek xale la waaw am vingt ans waaw. fii la nekkoon mais Maroc lay jànge ci vacances yi la fi nekk. saa lan lan ne wax ne moo leen jota ko moo ko jotaleeg waa ji. ah man kay xaw ma li ko jotale li dul nee nañ daal fii nga war a jaar moom fii la war a jaar ci loolu lañ jote ci lañ doon waxante ñoom ñaar waa ah jàpp nañ ko de lañ dégg xamuñu nag na xam déedéet amul soxna amul soxna xale la am na ay mag am na benn rakk bu góor waaw mi ngi Suisse ñëw. déggante waaw ñoo ngi déggante kayit. moom mënul sax wax téléphone. yaay mënul sax wax ndax xolam bu mel. waaye mënul sax wax. yan qualité moo la gënoon neex ci sa doom ci. Ah, am na diine am na lislaam ah, am na respect ci doomu aadama xam looloo ma gën a neexoon ci moom fu ma gis rek yaay sama yaay yaay sama yaay lañ may wax. waaw maa yaay ma bokk ndey ak baay mais dafa jël tàntam yëpp jox leen cër macha allah. moom yaayam ah relation kay yaay ak doom rek bëgg na ay doomam xam nga mu ngi dem di liggéey di daan doolem ak ay ndax ay doomam njabootam bëgg njabootam waaw loolu laa xam ci moom. ah papaam. ngi fii mu ngi ci baas bi. ma ko hmm? nga koy ñaanal. ah maa ngi koy ñaanal rek bàyyi ngaal mi ñu rey fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla na suuf oyof ci kawam ci barke seydinaa Mohamed maa ngi koy ñaanal sama doom ji waaw fa jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge ci barke Seydina Mohamed wasalaam. salaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la. waaw soxna si fay naa la. yaa ngi ci jàmm. oui maa ngi am jàmm. maa tudd. Serigne Issa Cissé. am la ñoo màggandoo waaw. Mhm. témoignage nga ñu mën jox ci moom. ah nit ku baax nit ku fonk diineem respecté ku ko mag ak ku mu mag yëpp. billaay kenn xamoo ko lu dara si affaire problème ay coow ak yooyu kenn xamoo ko si jàmm ak ak salaam rek billaay. naka lañ leen wax ne noonu la histoire bi demee ak Kikoré. Ah, d' après lañ ñu wax loolu lañ mën a wax quoi parce que fekkewuñu mais li ñu wax nee nañ euh, affaire de priorité la dañoo tese ñoom ñaar nii euh, léegi kii dem ku nekk yor oto kii dem man maa man maa am priorité maa war a jàll euh, kee ne ko man maa war a jàll loolu daal lañ jote ñu jotee dóorante d' après dégg léegi ñu ne ngal gu moo ko dominé mer. dem ba si otoom jël paaka ñëw jam ko ñett jam jamu ko benn su ko jamoon benn ñu ne tayu ko peut-être mais mu dem ko ñett waaw loolu loolu d'après loolu daal noonu la fa fee demee après mu daw dem yoonam waaw dafa daw bu mu jamee pare dafa daw mais police nee na teg na ko loxo daal gendarmerie wax nee na teg na ko loxo waaw si lu ñu wax nee na teg nañ ko loxo. si liñ dégg tamit nee na moom euh, légitime défense la dégg moom loolu la wax waaw si liñ dégg loolu daal la. d'accord comme Baye Ngalgou sa ami d'enfance la yan qualité moo la gën a neex ci moom. li ah li ma gënoon neex si moom kañ bëri na moom billaay li ma neex si moom bëri na mooy nit boo xamante ne foo ko gis mu ngi ree toog di malagante ba si safar gi la mujj safar gu màggal gi. si dimanche bi passé safar bi nee pare màggal moom moo moo mujj si la doon wax pour ñu def retrouvaille quoi ñu def benn retrouvaille parce que koñ bi màggee moom dafa tuxu après ñëw West Foire moom Yoff la màggee fenn Apecsy si léegi mu dem si la tuxoo West Foire nag mu tuxoo West Foire après dañuy toog des fois lu ay ay jours duñ gisante léegi mu buggoon nag ñu def retrouvaille pour ñëpp booy koñ bi yëpp gisante benn jour te gisante boobu dem ñëpp presque si bëj bi la woon. ñëpp ñëwoon nañ teew si gisante bi bilaay ñëpp ñëpp ñu mu bëggoon ñëpp ñu gisee gisante leen si dëjëm waaw. nga ah, ko rek métti ko ni mu ko yëgee mooy damaa doon tëdd may tëdd dama defoon sama téléphone silencieux nag ma yeew gis appel yu bëri sax yu bëri après ma tiit ma ne waa la ma war a xew après si laa waaye sama benn xarit tamit ñoom ñoom ñoo màggandoo quoi moo yëgal ma affaire bi. mu métti lu ko trop saa kañ moo ñëw fi kañ parce que gëw ma ko woon ma ne non loolu mënul nekk bàyyi ngaa la mënugul demee noonu billaay noonu laa ko yëgee. ngeen di xaar tey ah, ñu bàyyi yoon def liggéeyam mu def liggéeyam te mu xam ne kii assassin la reykatu nit la reykatu nit la de kii du ku baax kii jarul sax bàyyi fenn muy taxawaalu ku jam nit ñetti jam da ko assassin nga reykatu nit nga. bilaay waaw ñu ngi lay jaajëfal tey merci beaucoup. asalaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la. maaleykum salaam soxna si na nga def. yaa ngi si jàmm yaa si jàmm. waaw maa si jàmm baax. maa tudd. maa ngi tudd Fallou Ndiaye. Hmm? nga ci bàyyi ngal gu. nga ci bàyyi ngal sama frère la sama xarit la suma doomu ndey xam nga Wolof Ndiaye ne ànd ànd bu yàgg mbokk la depuis dix ba léegi ñooy ànd te ba ñu àndee ba léegi dara mësul ñaw te macha allah nit ku baax la vraiment. loolu la Ngalum moom mënu maa ne sax sama xarit la mun naa ne sama frère de sang la ñooy defandoo lépp ñoo àndandoo lépp sama téléphone bu ma lay woon vidéo yi ànd yëpp bu dul jeex bu préféré ne que màggal Sëñ Fallu bii di jàll sama kër la ko defee. ma koy tooñ sax naa ko yaa ngi ci yaa ngi ci liggéey bi de yaa ngi ci lekk bi de mu ne waaw waaw Fallu te moom xoolal booy wax ak moom xam nga am ñoo xam ne euh, yàlla daf leen bee ñoo xam ne dañoo bëri dugg génn génn moom xamewu ma ko maanaam dugg génn génn la laa ko xamee mooy nit am kersa nit ku baax nit ku yaru bàkk Sëñ Bàmba wallaahi yàlla rek moo tax may wax mais ngalu moom zéro faute man moom tiituma ci moom. parce que fi mu nekk ne na fu dase wala nekk bàkki alxuraani karim parce que nit am na nu muy mel noo xam ne bu ko melee rek bu demee bu kenn tiit dañ koy dellu di ko ñaan rek yàlla lafal ko cat macha allah affaire yi àgg na fu ne. ñëpp dégg nañ ko maa ngi jotee appel fu ne day mel ne sax man ki ma bokkoon ndey ak baay ma décédé nit ñaa ngi may jaale di ma woo di ma envoyé message naa ma massa massa massa euh, di. dinaa ma sowu parce que sama frère la yàgg nañu ànd yàgg nañu euh, fréquenter quoi euh, vraiment. naka nga yëgee xibaar bi ak bi nga ko yëgee lan moo nekk sa réaction. man premièrement bu nga ko yëgee gawuma ko dama ne c'est impossible koo xam ne da nga ko romb bëkk bëkk Demba Ndiaye ngeen romb toog waxtaan lu yàgg benn une heure de temps. léegi nga xëy ñu ne la saay dafa décédé dañ koo rey gëw ma ko woon quoi man mënu nekk bañ damaa wàcc ci oto bi rek daw euh, euh, am na sama ñaari frère yoo xam ne ñoo fi nekkoon euh, fekkee nañ affaire yi ñoo dem mais damaa dem ci palaasam direct di seet ñun ma ñëwul sama xel ma commencé ñaaw tuuti ma xam ne lii du affaire caaxaan léegi ma dégg kenn ku ne ngalu dañ koo rey ma ne est-ce loolu mën a nekk ngalu moom koo xam ne du xeex du histoire bëriwul dugg dugg bëriwul génn génn loo ko xamee mooy kaf agré ak jàmm ak salaam kooku bu ñu ree reyee kon kooku moom est-ce que loolu mën nekk léegi après ci laa toppee les informations di laaj après ma doog a confirmer xam ne sama xarit sama doomu ndey dem na nit ko baax dem na. vraiment affaire yi métti na lool métti na lool lool lool sax siñ tu baax ah dañ koy ñaanal yàlla rek parce que kenn ku nekk boo toogee nga xool xamu ne ni mu demee métti na. tamit bu fekkee ne sax ki ko ki ko rey bu fekkoon ne sax euh, accident la sax amul problème mais ki ko rey dafa jël intention bu ko intention rey ko mooy nit ki ngeen xeex ba pare yéen xeex ngeen affaire góor la d'accord nañ mais pourquoi yow nan ngay yore sa oto di jël am premièrement mu def na benn benn délit jël sa oto def ci am arme deuxièmement yu nga ibi oto jël sa arme fekk ci biir otoom jël paaka jam ko trois fois kooku dafa jël intention pour éliminer ko carrément. te nag man leen rek laay ñaan mooy encore une fois na justice daf liggéeyam man li mu gën a jaaxal booy bi kenn amul photo kenn xamul nu mu mel man ba tey ba léegi maa ngi laajte booy bi kan la mais xaw ma fan nu mu mel xaw ma fu mu dëkk amuñu fotom amuñu dara ki ko roy ki rey ki rey ki ko roy xamuñu mooy kan ci boppam man leneen leen rek laay ñaan ñun ñu wax ñu booy bi fa la nekk ak euh, kañ lañ koy ñu bëgguñu mm, mm, euh, ñu ñu teg ko foofu di xaar ay temps benn temps jugé ko non. tey ngeen dem raya euh, doxalee xam noo xamante ne yéen koo doxalee xëy na loolu moo tax ñu leen koy nangu ñun am nañ ay kilifa ñun mënuñoo def dara sans suñ kilifa yi suñ kilifa yi lañuy jiital maanaam ñu def li war ñu doog see topp justice nag moo xam luy liggéey ak luy yoon mu def ko ñun mënuñoo nekk justice mais bu fekkoon ñun kase kese kese boobu dañ koy rey parce que liñ def dafa metti kim rey du benn nit dafa rey mbooloo ba da rey parce que foo dem am na foo xam ne manqué na fa manqué na fépp fépp la manqué koo xam ne foo dem boo ne diw rek ñu ne ah kooku nit ku baax la kon kooku bu demee manqué na fépp ci àdduna ñun nag duñ ñëw rek ne ne dañuy attaqué dañuy xeex dañuy xuloo dañuy non non dañuy bàyyi juste def liggéeyam te juste liggéeyam ñu koy defee na ko def rapidement ay jëru affaire yu jëru sax muy def benn e, e, jël temps yow muy def deux semaines une semaine maximum seen enquête def nañ ko def nañ lépp lu war léegi nañ ñëw ñu jugé parce que ñun nag duñ bàyyi mu sedd de parce que duñu bàyyi euh, quelque temps pour xam ne affaire def nañ ko wala defuñu ñun dañoo bëgg a teg une semaine bu ñu déggul dara dinañ dem laaj enquête boobu fa la nekk ci yan loxo la nekk ak kañ lañ koy jugé ak ñaata peine lañ koy teg parce que lii dafa yomb d'après que li ma dégg ci booy bi booy bi instant yi dañoo wax ne ñoom ñaar dañ dem histoire parce que kee bu ko attaqué man fekk affaire yi mais man ku ma laaj man li ma xam ci ngalu kee moo tooñ parce que Ngalu du xeex xeexu histoire ku du xeexu histoire noonu bu boo boo fekkewul euh, histoire bi sax di nga xam ne kële moo tooñ. kele moo tooñ moo ko moo ko attaqué fekk otom jam ko ba def ko li mu koy def mais nag yàlla baax na xëy na yàlla moo ko tëddee woon nii mën na ko yow de euh, fii nga yem. yow booy génn àdduna nii lay demee ak fii ngay jaar noonu la fa demee quoi. yan qualité moo la gënoon neex ci moom. Euh, vraiment nit ku baax la tamit nit koy am. am yite ba ci nit ñi maa ngi fàttaliku bëgg Demba Ndiaye ba sama xarit di bañ àndee di ñibbi wallaahi azim laax de kenn ku nekk fi nga dëkk seen kër sore na moo taal otom kenn ku nekk mu jël la déposé la ba sa kër gars yi wax mu ne noonu garaawul tànk que ñëpp ñibbiwuñu du ma leen bàyyi kooku noonu loo ko mën a fay ci àdduna baax rek baax rek la def moo tax gis nga boo gisee mbooloo mi nga xam ne baax rek a baax rek a baax boo demee bañ ko def enterré du fii de fi ñu ko fi ñu ko fi ñu ko denc sori na Dakar lool lool lool mais ñëpp dem dem. Hmm? Euh, dem ci guddi ay timis lañ ko denc. lu mu guddi guddi guddi gi mbooloo bi macha allah bëri nañ loolu ñëpp a taal si te ñëpp a dem pour assister ñaanal ko yàlla xaaral ko àjjana ñu jëbal ko moom te ni gëm naa ne man sama xel mën a dal ci moom vraiment parce que nit ku baax la yàlla la lay fay xool ak yéene nit ki sax mën a mu nga nekk ci àdduna di jagar yi def lu bon mais sa xol bu rafetee rek boo demee kenn doo laaj dara nañ la jël jëbal la àjjana te moom musuma gis moom ci qualité yu yoo xam ne baaxul qualité yu yu baax rek laa gis moom baax na yaru na te macha allah mention très bien vraiment. waaw maa ngi encore une fois di ñaan aussi juste na def seen liggéey liggéey bi mooy lan nañ euh, jugé kii rey ngalu nekk ko ñaata pen lañ koy dégg te affaire bi buñ ko dëb dëbal ay jël nañ ko tëj nañ ko nangam sàngam parce que booy bi bu fekkee ne d'après que li ma dégg ñee Amérique la nekk mënu ko jëm lijjanti ay kayitam yëpp yëpp ko Amérique mu dem mu ñibbi loolu du fi nekk te wallaahi bis bu demee Amérique justice na jël ay responsabilité bu fekkee sax dañ koo tëj euh, camp pénal ñun dañeen dem visiter xool boo xam booy bi tëj na ko man dinaa fexe-fexe ba ñaan euh, permis pour xool boo xam tëj wala ñu ko jeer nañu chaque un an ñuy visé boo xam booy baa ngi foo nekk jaral nañu ko parce que bu ñu ko bàyyi noonu affaire yi sedd lay def parce que dafa yomb koo xam ne am na avenir nekk si nekk si life bi di dund dundam amul kenn coow ni ko xamee baax ak yaru ak taalibe lañ ko xamee benn sàmm booy jugee fee ne doo ci dal tey yow tey laa lay pare te kii intention gis ngi nga nit ki euh, am noo xam ne sax jëru sax enquête juste buy xool na xool intention bu boobu jël nit nit ki ñu ñaar buñ dem xeex buñ demee police ni ñuy xool euh, façon dóor bi mu la dóor bu ñu xoolee moom dafa laa bëtt ginnaaw dóor la wala daal bëtt ginnaaw di xam ne kii moo tooñ wala tooñul ñun xam nañ kay moo tooñ ki jël euh, dem ko trois fois kooku dafa jël étation pour rek pour wàcce ko mais nag yàlla baax na damay dool di ko ñaanal yàlla ko yàlla xaare àjjana te yéexee ñu ko te njaboot gi nañ am xolu muñ balaa ñuy xam ne Ngalu manqué na fi trop trop trop affaire dem une semaine la affaire doog a métti vraiment métti na loolu maa leen gërëm di leen sant vraiment yéen tamit yéen def seen liggéey seen liggéey rafet na lool. yéen ñëw di xool information yi di ko wan nii nit ñi mën koy xam lii rek moo am solo lii mooy média média day jël luy information dëgg mu teg ko mais duñ jël loo xam dañ koy dëb dëbal ñu jël ko bàyyi lee vraiment sant naa leen gërëm naa leen macha allah. salaamaaleykum nuyu naa la sëñ bi. Ah, maa ngi lay fay yaa ngi si. sant yàlla bu baax. tudd. Euh, man kii euh, euh, Moustapha laa tudd. lan nga si bàyyi gu. papaam ak sama papa. maa ñoom ñaar ñoo bokk. waaw yan témoignage nga moom. ah man bàyyi moom xam naa daanaka man may lu may wax ci moom du bëri. ndax affaire jour ba muy am jour man maa ngi woon fii ay 18 heures laa fi ñëw. laa toog ay ba ay 22 heures gis ma ko si laa laaj ñu ne bàyyi ngal dafa jàngi. léegi si laa yegg sama kër ay 23 heures si laa toog ba si yàgg sama papa ne ma ani bàyyi ngaa la ma ne ko bàyyi ngaa la ba moo demee man fekk ma ko fa xale rek laa fekk si laa toog tuuti rek ñu woo ma ne ma bàyyi ngaa dañ ko jam ma loolu mënul nekk si laa daw ñëw dem fekk njaaj ko yóbbu mais mais fu ñu ko jëmee xam naa ñaax na deret bu bëri moom am fekk naa deret bu bëri torop torop torop waaw métti na torop sax ba fu métti yam waaw léegi après waaw après bu mu amee bañ demee foofu si laa ñëw ànd ak grand yi ñu daa dem si kër pape boobi léegi bu ñu demee ne paa bi andi booy bi. ki ko jam. waaw après paa bi booy jam. ñu ne ñu ne ñu ne ko ani booy bi mu ne booy bi daa dem kër maamam ñëw nga léegi ñëwuñ da dem daal di koy jëli paa bi dugg si kër gi lu yàgg génnut. woon ngeen paa bi ne daf dafa jam nit. waaw waaw nañ ko wax bi paa bi waaw metti na yooyu noonu. mu toog lu yàgg paa bi génnul. après gars yi dugg si biir nar koo génnee si la génn taal oto ànd ak sama copain bee Sidi léegi bañ demee ba ñu dem ba si yàgg paa bi daañu yóbbu euh, fee euh, gendarmerie foire te bu ñu demee ba dugg ay 3 heures et quelque ay 3 heures 4 heures non bi ndax ñun ñun gars dañoo dañoo defoon convoi topp ko léegi paa bi dem ba gendarmerie foire jàdd gars yi ñu jàdd tamit fekk ko fa léegi paa taxaw waxul nag gars yi commencé ko attaqué ku ne wax. léegi si lañ toog toujours ñu ne booy bi dañ koo jël yóbbu ko police mu nekk wakaam xaw ma léegi fa laa mujjee toog ay 4 heures gisuma dara dégg ma dara si laa ànd ak sama benn grand daal ñëw ñibbisi mais moom affaire bi na trop sax ndax ku baax la ku yaru Baye Ngall tey bu yoroon 500000 balaa muy tëdd mu taal ko ndax da lay yóbbu réseau loo bëgg mu jëndal la loo bëgg loo ko mu may la day daal nga ne ko ngal daal bi dafa ne mu ne suba boo ñëwee kër ga naa ko jox boo ñëwee musu mu jox la ndax Baye Ngall moo nekk nit koo xamante ne man moom xam naa lu may wax ci moom du bëri daal metti na lool mais ñoom nag mbokk boo yooyu bu ñu yaakaar ñun dinañ bàyyi mu sedd non ñi ngi nax seen bopp duñ bàyyi tey duñ bàyyi suba duñ bàyyi ginnaaw suba. ngeen seen convoi si mbokku booy bi ban réaction la ñu am ñoom famille am ñoom. non demee paa rek la ñu fekk waaw ñu fekk ak kii tamit beneen grand léegi si nañu waxe paa bi ani booy bi dañoo ñëw laaj ko mu ne booy bi daa dem si kër maamu ndax affaire ba mu amee booy ba mu ko fii la jaar mooy si bunt kër gi fii la jaar daw. léegi ñu nekkoon foofu si koñ bi si koñ fii la dëkk si ginnaaw soriwul léegi ñu ñu nekkoon fii grand yi topp ko ba léegi bañ ko toppee dóor ko ay xeer boobi daw daa dem xaw ma nag ba mu demee xaw ma essence bi moo ngi mais wóorugul bañ demee doon nañ laajte ani booy bi fa la nekk mais gars yi ne jël nañ ko yóbbu nañ ko gendarmerie fois mais ba tey ñun xamaguñu si dara ba tey xamaguñu si dara nag mais nañ ñi ñi ngi ñaan na yoon def liggéeyam bu yoon deful liggéey nag ñun nag ñu dinañ def suñu liggéey ñu waaw man moom loolu laa am lu may wax si Ngal nag mais métti na loolu nag macha